kay li ci yéene kay Abdoulaye Bopp lañ ci àndal. dal leen ak jàmm gan ga dem na waaye ba léegi nganam gi ñu ngi koy waxtaanee fii ci euh, réew mi euh, Marine Le Pen yéen a cabinet euh, ci weeru janvier gi ñu weesu la jotoon a gane si njiit réew mi Macky Sall waaye nag ngan googee ay tamb tàmbale na ca sulleeku bu ñu sukkandikoo ci Hadjibou Soumaré doonoon fi premier ministre ca nguurug Abdoulaye Wade gawoon woon bokk na ci Hadjibou sumaare di laaj ndax juróom-ñetti milliards yi nga xamante moom la njiit réew mi Macky Sall jox Marine Le Pen fan la njiit réew mi Macky ak lu wundu yooyu les milliards ci réew moo xamante ne ndool na lool ci réew moo xamante ne bor bi gàlloo ci suñu loos dis na gan moom la yéen a bi di Walf Quotidien xëy di càmbar waaye nag ay jege ñaale njiitu réew Macky Sall tontu nañ ci saa si Hadjibou Soumaré ku mel ni euh, Birame Faye euh, bu APR gis ne Hadjibou Soumaré daanaka la mu wax teguwul fen euh, amul lenn loo xamante ne dox na ci koppar ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Marine Le Pen Birame Faye ay wax yéen a bi wala beneen milliard gi nga xamante ne tudd nañ ko ci jamono ji Hadjibou euh, Soumaré euh, di fàttaliku itamit euh, juróom-ñaari milliard moom la bëgg a xam lan moo ci laxasu ci yooyu le koppar bokk na ci mel ni sax ku joxoñ baaraamu tuuma njiitu mi Macky Sall ak nguuram waaye nag pale ba fippu nañu xam le ne yooyu le kaddu dara amu ca yéen kaabi di bi ne li am ba des mooy ndax njiitu réew Macky Sall dafa jébal lu toll ci juróom-ñaari milliard ak yu toftal kii di Marine Le mi ko gane si woon cabinet Donlu euh, euh, premier ministre ga woon Hadjibou Soumaré bu nga xam ba tax na xel yi jaxasoo ci jamono ji jiixi jaaxa am na ci euh, googu lépp ngan yéen cabinet turbine génnagul palais ba fa la ko dalaloon yàggut république bek scandale ci wàllu milliard say su ne bu ñu xëyee dégg ci wàllu milliard yéen cabinet lu jege juróom-ñetti milliard ya ñu ne moo dox diggante njiitu réew Macky Sall ak Marine Le Pen Hadjibou Soumaré di ci leerlu yàggul dara lu toll ci 98 milliards yoo xamante xamante ne euh, dugg na ca trésor public euh, te kenn xamul nañ ko jaarale koppar googe fuñ ko lebe ak lañ ca jublu euh, doon lu Bougane Gueye Dany doon leerlu yàggul yéen kaabi di enquête di ñu xëy leeral ci tournée économique yi njiitu réew di amal ci jamono ji yéen kaabi ne wute na lool ak yamu daan amal laata muy falu président daanaka ci opposition la ne woon saay bu mosoon a wërngel dëkk bi dëkk dëkkaan yi mu dem fa de ko doon jural njëriñ ci wàllu politique ndax loolee ko faloon ne ba ba léegi ma ngay amal tournée économique fépp fu ne waaye nag ba léegi juraloogu ko njëriñ ci wàllu électorat maanaam saay bu élection jotee yéen a bi di l'évidence ne jot nañu euh, may afia Ousmane Sonko bàyyi ko mu doon candidat ci élection présidentielle ñu jëm euh, ki ko xam ne di Seydina Omar euh, Sy doonoon ministre des affaires étrangères ca nguurug Abdou Diouf gawoon jàpp ne bëgg a xañ Ousmane Sonko mu doon candidat mun na jur leneen ci réew mi bokk na ci tamit ñaawlu na sax li xew ci réewum Sénégal ak na muy doxee ci euh, jamono ji ci nguurug euh, Macky Sall yéen a kii di le peuple quotidien Ahmed Khalifa Niass la xëy dalal yekk na lu mel ne xeme Ousmane Sonko mi mu ne dafa jog ngir yàq diine ji euh, bu ñu sukkandikoo ci Ahmed Khalifa Niass mi tuumal njiital Pastef ne day foye diine ji ci waxtu wi am nañu lu leen metti lool ca na mu doxalee ca Léona Niassène yàggut moom Ousmane euh, Sonko Ahmed Khalifa Niass ay wax yéen a kii abitu sur saa xëy waxtaanee wàllu politique ak élection présidentielle ñu jëm bokk na ci sax euh, kii di maître euh, Moussa Diop. jiite woon fi Dakar dem dikk xamle ne ne xàmmeetul coalition wallu askan wi nga xamante ne daanaka ci opposition bi la ne woon be ne muy dugg assemblée nationale waaye tey ji kenn mënatu leen a gis ci géew politique bi. ña ngay dooleel njiitu réew mi euh, Macky Sall ba tax na lu Mimi Touré wax lu mat a bàyyi xel la ci jamono ji PDS ma ngay ko toog njiitu réew Macky Sall ngir waajal élection présidentielle yu 2024 euh, euh, maître Moussa Diop daal di fàttali ne tey ji waroo mun a gàkkal yoon ak takk der yi bu fekkee ne da nga bëgg a falu président ëllëg bokk na ci yeewi askan wi sax googu la coalition tur bee fi des waaye nag tasaaroo am na ca yéen bi xëy duñu ko leeralal ci yooyu les élection présidentielle ne candidat lay doon moom maître Moussa Diop euh, candidat geneen ci sursa di Alioune Lo njiital mouvement Sénégal conscient yéene cabinet xam la ne ne la euh, ci élection présidentielle ñu jëm ngir dagaan battu askan wi ngir soppi euh, réew mi ci anam yu bari lool te wute yéene cabinet di la mandane candidat yaa ngoog kenn ku nekk bëgg naa dugg palais ba doon juróomeelu président doon lu yitteel Malick gaku njiital grand parti xam le ne yooyu la élection kenn du ko ca jiitu bokk na ci ne daanaka yéen wul maana saay boo taxawee ne élection bi kenn du fi waxe kenn du fi tamit donné candidat euh, Madi Gakou ma ngay wax ak njiitu réew mi euh, Macky Sall du ñu nangu mukk euh, ñu leen di noot wala boog di leen bunduxatal yéen kii bi di 24 heures ne candidat geneen di itamit Cheikh Omar Diagne mi ñu ne njiital parti bi di RV ne candidat la ngir soppi doxalin gi nga xamante moo am ci nguruk Macky Sall candidat geneen docteur Cheikh Dieng bu parti fraternité éthique pour le progrès Tawfekh Fépp doon na candidat Sylla moom mi doonoon euh, maire bu Djida Thiaroye Kaw ne bëgg na indi yeesal ci koomu Sénégal njàng meek njàngale mi euh, changement climatique ak démocratie yéen cabinet tey ji candidat yaa ngoog 2024 ñëpp ñëpp a ngi leen tàmbale bàyyi xel yéen cabinet di euh, Sud Quotidien lu mat a bàyyi xel mooy pétrole ak gaz bu Sénégal bokk na ci li sooke sax daanaka candidat yi tàmbale bari lool ndax Sénégal ak fa muy jëm bu ñu xayma atum lem pétrole beeg gaz bi lum ñu mun a jural ci wàllu kom dina toll ci jàpp 800 milliards yéen kaa bi moo ñu ko yeggee ci xatam bu njëkk yéen kaa bi di la soleil mu ngi ñu dégtal xalif bu Medina gunaas jot na yeggee mbégteem ci njiitu réew mi Macky Sall jot na ko ñaanal foofee ca Medina gunaas mi daloo Dakar ba yéen kaa bi di libération ne amagul liberté taskatu xibaar bi di Pape Ndiaye bu groupe Walfadjri dina jàkkaarloog procureur tey yoon dina ko déglu ci kàddu yamu yëkkati lañ koy toppee bokk na ci eh, joxe xibaar yu wérut ak ñàkk wormaal magistrature yéen cabinet moom Pape Ndiaye euh, dañ ko ca déglu Saint-Louis moom musiba mbaal boobu kumba moo fa am euh, ci diggante ab maçon ak jaaykat ba bakkan rot ca yéen cabinet di suñu lamb ne combat gàngoog euh, jeex na waaye nag ñu ngi ci prolongation beeg werante gi diggante rëg-rëg ma ne moo daan Sa Thiès yéen cabinet benn combat waaye nag ñaari jël ñoo ca am quatre appui ak beneen jël goo xamante ne rëg-rëg am na ko ci kaw Sa Thiès Sa Thiès ne déet daan na ko ba noppi yéen yéen kaabi di euh, suñu lamb jox kàddu ga ak lu lamb euh, kenn ku nekk ma ngay joxe xalaatam ci bile combat Reug Reug Sa Thiès euh, Seydina Omar Ba maa ngi lay nuyu. ma lay fay Abdoulaye. naka suba si. alhamdulilah.